sa invité bi. alors Seydina ñu ñu dooree ko ak euh, Walf Quotidien pour démarrer la wala pare ko. sa bopp pare nga alors ñu dem léegi léegi ci la revue des titres dooree ko Walf Quotidien. Walf Quotidien. waaye ci ay jafe-jafe yu jéggi daay moom la ñu Aïcha. ñu dem ci direct news. yéen kaay gi direct news xëyee dellu si ci lancement parti politique fële ci kin far place noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale Amadou Ba finalement mujjee naa rëdd yoon wi nga xam foofu la fas yéene jaar yéen kaay gi moo xëy fësale loolee neen dafa fas yéene taxul ab parti politique boo xam li ko tax a jóg mooy peuple bi peuple bi kese ak peuple bi kese daal noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale yéen ay kàddu nag daal di weddi lañ koy tuumal ne ko moom moo écarté kii di Karim Meïssa Wade ci élection présidentielle yi ñëw moom nee na loolu amut noonu la ko yéen kaay gi di direct news xëy fësale soxna Aïcha yor yor yéenekaay xëyee dellu siwaat ci Amadou baax mi nga xam ne ni am na yéene samp à parti politique euh, démb daal daanaka la amal lancement bi fa lay ca King Fahd Place yéenekaay gi ne Amadou baax ndax nekkul ci tànk yi euh, sukkandiku ci parti politique boobu lee ngir ut fu mu làqu euh, gannaaw ba nga xam ne ni lii di reddition des comptes daanaka gars yi tàmbali nañ ko noonu la ko yéenekaay gi di yor yor xëyee fësale bés bi le jour yéenekaay gi di bés bi bu doon ne équipe nationale Amadou Ba numéro ba mu bëgg a porter mooy neuf noonu la ko yéenekaay gi moom Amadou Ba nag nee na dina fas yéene taxawal ab politique boo xam li ko tax a mooy askan wi kese askan wi kott askan wi kese noonu la ko yéenekaay gi xëye fësale moom Amadou Ba nag wax na ba mu jeex tudd ci ki nga xam moo di président mag Sall gars yi jàpp na diggante Amadou ak Macky c'est fini noonu la ko yéen kay xëy fësalee leneen aussi loo xam ne yéen kay xëy na ko fësal te mooy accident gu métti gu métti métti nga xam ne meeku nañ ko fële ci ndangal ma benn camion moo fa mbëkkanteeg benn bus fukki doomu aadama gërëm benn ñoo ci ñàkk seen bakkan li ci gën a dawaat ñoom ñëpp dañoo lakk ba jeex tàkk noonu la ko yéen kay ji di bés bi xëy fësalee soxna le quotidien yéen kay xëy dellu siwaat ci Amadou Ba mi nga xam ne mu ngi ci tànk yéen kaay gi ne Amadou Ba lan ban projet la nekk di tëgg jamono ji yéen kaay gi moo xëy fësal loole moom nee na créewul parti politique pour ay la mu créé mooy fexe daal maanaam mooy mooy mooy jàppale askan wi noonu la ko yéen kaay gi di la côté jeen xëy fësale l'info yéen kaay l'info yéen kaay xëy dellu soxti Amadou Ba xam ne finalement mujj naa jël destin en main maanaam daal fexe ba jël nga ba nangu daal euh, takk fitam wi am euh, yéene kon euh, soobu ci langue politique bi yoon noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale Euh, ba tax mu yëg ay kàddoom di woo ci nguur gu fi ne ne jamono ji sénégalais yi ñu ngi nekk di xaar ndaxte défi dafa bari am na défi économique ba ci sociaux yu yu jéggi dayo euh, ba tax daal dañuy xaar ci état bu Sénégal mooy mu agir noonu la ko yéen kay gi xëy fësale wax nag ci la ñu koy tuumal ne moom moo taxoon Karim Meïssa Wade bokkul ci élection présidentielle yi di ñëw moom Amadou Ba weddi na ko mi ngi ci yéen kaay gii di l'info ñu dem ci critique critique yéen xëy dellu si waat ci Amadou Ba mi nga xam daanaka mu ngi rëdd yoonam noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale moom nee daal waxtu wi jot na ngir ñu agir maanaam ngir ngir ñu teg ay jéego ngir ñu jëf waaye lépp nag dañ koy teg ci ay méthode noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ci jamono lu joojule Abdoulaye Seydou Sow ma ngay yëkki ay kàddoom di wax ne ne moom maste daw ne dafay génn réew mi te bu fekkente ne Ousmane Sonko loolu la yaakaar ci moom ma ngay nax boppam noonu la ko yéene kaay gii di critique xëy fësale. Sud Quotidien. Sud Quotidien xëy dellu si waat ci lancement parti politiquement du baax daanaka fu mu toll nii ma nga nekk di rëdd yoon wu bees yéene kaay gi moo xëy fësal loole ëpp la ko Amadou Ba ak parti politique am bi euh, Serigne Thiam di ab jàngalekat nekk ca université Cheikh Anta bu Dakar yéen yàbbi si euh, mi ngi ci yéene gii di Le Quotidien. source A. source A xëy dellusiwaat ci Amadou Ba mi nga xam finalement mujj naa génn ci tekk tekkaaral gi mu nekk woon am na yéen ko taxul parti politique am yéen kaay gi moo xëy fësal loolee ci jamono ji la Abdoulaye Seydou Sow ma ngay nettali euh, nañu ko bloqué fële ci aéroport Blaise Diagne bu ba ci jas mi ngi ci yéen kaay gi di source A. ñu dem l'évidence. l'évidence yéen kaay xëy dellusiwaat ci aar sunu moomeel aar sunu moomeel bi nga xam jamono ji. Euh, mbay mi campagne mbay mi muy doxee jamono ji lu ko jaaxal la noonu la ko yéen a kaay gi mbay mi maanaam taw bi taxu koo demee noonu teg ci aussi am na ci ay gunóor yoo xam ne commencé nañu lekk la nga xam moom lañ jot saxle ba tax daal ñu yëkkati seen i kàddu di sàkku daal ci gouvernement bu Sénégal ngir jël ci ay matukaay euh, ñëw nañu nag di samp bëgg xam ndax mu boobu moom information bi nga xam ne nii mooy li am ci àll bi amee na ko noonu la ko yéen kaay gii di l'évidence xëy fësale. 24 heures yéen kaay gii 24 heures xëy dellu ci juróom-benn téeméeri millions yoo xam ne nii dafa na mes ni maintenant ci pôle de lool ki nga xam moom moo di Yankhoba ay jéeme di jëwri ci nga xam ne dañ ko wàll emploi ba tax dem mu yëkkati ci ay kàddu noonu la ko yéenekaay gii di 24 heures xëy fësale tribune yéenekaay xëy dellu siwaat ci déclaration de politique générale bi nga xam ñu bëri ñu ngi koy xaar le 13 waaye bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay dafa mel ni que est-ce que déclaration boobu la du am nga xam premier ministre Ousmane Sonko wax na ne président dana jël kàddu bu ci noppee ministre yi kenn ku ne da nga wax la nga fekk ci seen ministère loolu nag bu amee est-ce que dana jar ñu amal déclaration de politique générale noonu la ko yéene kaay di laa kii bi fay fësale. ñu dem ci euh, las yéene kaay. soxna Aïcha dafa xëy dellu si ci accident gu métti gu méttee métti nga xam ne meeku nañ ko euh, ni ki démb ci euh, kaw yoonu ngand wi ci fa tolloog ndaama benn bus daal moo fa mbëkkanteeg benn oto suuf bilan bi diis na ndax lu ci tolloog fukki doomu adama ak juróom benn ñoo jote ñàkk seen bakkan kay bu ñu sukkandikoo nag ci lenn ci ay témoins ñoom nee nañu am na ci ay nit ñoo xam dañ doon yuuxu waaye mënu si ñoom dara ndax lakk gi moo jéggi woon dayoo noonu la ko yéenekaay gi di laas xëy fa si les soxna Aïcha. réew mi quotidien. waaw yéenekaay gi di réew mi ne ndàngal moo ñëw na yokk ci li mu accident yi nga xam ñu ngi koy nemmeeku fi ci biir réew mi. accident bi nag mu ngi am ni ki démb benn camion suuf moom mbëkkanteeg benn benn maanaam benn bus boo xam mu ngi bàyyeekoon fële ci cité Lobatt Fall euh, ci Icotaf. bilan bi nag gis na loolu ndax lu ci tolloog fukki doomu aadama ak benn ñoo jot a ñàkk seen bakkan am na si nag ñoo xam jot nañ cee jëlee ay gaañu. jërëjëf si Omar Ba ci euh, yaatalub euh, xibaar yi honorable député amatina euh, solo ci yaatalub li yéene kaay yu tey gi amatina solo en attendant ngay wàcc ay préparer sa commentaire du jour ñu dalal fii Moussa seen comme nañu koy defee nag talaata gu jot ci rubrique éducation Moussa Sène aujourd'hui qui va nous parler de la situation des maîtres contractuels ñu wax ne nag lenteur administrative yi faaw ñu wax ci il est temps c'est basta alors Moussa bonjour comment tu vas naka suba si bonjour ñi euh, ma fekk si plateau bi yow nga mel ni Serigne Daara nii naan <laughs> asalaamaaleykum xam nga di changer posture à chaque baax quoi saf saf lu kilifa waaw donc di nuyu euh, Abdoulaye Bob di nuyu aussi Seydina mi fekk si plateau bi di nuyu suñu gan bi euh, di nuyu également suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers TV ak plateforme digitale yi Seydina nee na kilifa nga léegi naa la jox cër. waaw si wax na dëgg kilifa. li ngay wax wax na dëgg tiitoo yow gisoo ni ma ne asalaamaaleykum. ça veut dire que damaa tiit <laughs> dafa kilifa bi ci talaata gi ci rubrique euh, dañuy dalal nag euh, ci plateau bi ki lay di Assane Ndour moom moo nekk coordonnateur bu collectif des maîtres contractuels du Sénégal alors si Ndour ñu ngi leen nuyu baax a baax di dalal ci réveil bi. Euh, maa ngi lay fay di nuyu également. ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. voilà comme ni ko ni ngeen ko xamee. Mhm. maay si Assane mhm. si le coordinateur euh, des di collectif euh, de maîtres contractuels endurcis du du Sénégal. d' accord si kanam ak jàmm kon dinañ ñëw waxtaanee euh, sujet bi ñu fi dajale en attendant alors honorable euh, actualité yi nag bari na te wute ah, mais li gën a fës te mu nekk presque à la une de tous les journaux moom mooy le visage de Amadou Ba qui revient encore d' après démb bi mu defee lancement de sa plateforme nouvelle responsabilité. yaakaar naa ne bokk na ci actualité yi ñu gën a partagé comme on effectivement boobu comme ni ko journaux yi waxee rek finalement Amadou Ba mujjee na jël responsabilité euh, génn konti ci laaral gi mu nekkee woon parce que ne wane boppam la boo xam aussi vraiment ñu ko ciy félicité parce que aussi un politicien da ngay nangoo di jël say responsabilité tout à fait kon le fait que vraiment bu jógee ci élection présidentielle yi am ci presque plus avec 35 pour cent mu neex mu naqari actuellement nii c'est le chef de l'opposition kon ñu bari ci ay politiciens doon réclame à que vraiment Amadou Ba na génn wax mhm. finalement génn na wax na nee na dana fas yéene taxawal parti politique am mu nekk nag loo xam ne nii mënuñu ko ko bañal kooku c'est c'est tout à fait normal mhm. mais li nga xam moom la ñu demee ko démb ci rencontre bi mooy ci biir rencontre bi da ngay sentir ne mhm. divorce

kon bu fekkente ne Amadou Ba moomu lee dem nañ ba finalement gars yi tabb nañ ko def ko mu doon seen candidat mu dem ci élection présidentielle ak ni ko ak ni mu demee. Mhm. gis nga élection ni mu demee. Mhm. mu génn avec cinq pour cent. te jii mu génn wax ne effectivement dafay sam parti politique boppam kooku vraiment mënuñu def lu may encouragé ko. Mhm. par rapport à ça léegi maintenant li ñu war a def mooy que Amadou Ba ban chance la am ak it ban dayo la mën a am jëm ci langue politique bi question la yoo xam nga rek la koy mën a posé mais de toute façon nañ jàpp ne Amadou Ba dafa am benn bët boo xam ne Sénégalais ñu ngi koy xool ci moom te loolu bu fekkente ne lijjantiwu ko dina jafe loolu pour que muy jëm a am wala mu jëm a perse ci langue politique bi tout à parce que Sénégalais chaque jour ko ci nekk ci ñun bu fekkente ne yaa ngi xool Amadou muy défilé ci écran bi dangay ngay naan regarde un fonctionnaire milliardaire boo xam ne ni jusqu'à présent nangu te justifier ses milliards mmh. du temps de Macky Sall président Macky Sall dafa demandé woon l'ensemble di ministres yi nekk ci gouvernement am nañuy def déclaration de patrimoine ci OFNAC kenn ku ne nga wax sa alal ni nga ko jëlee woon Amadou Ba bokk na ci ministres yi nga xam ne jusqu'à présent defuñu seen déclaration de patrimoine mm-hmm. maanaam demuñu OFNAC wax ne ne ñoom seen alal nii la toll ak nii ak nii lañ ko amee léegi tey jii kooku bu fekkente ne taxaw na wax ne ne ñu bëri sénégalais jàpp ne ne moom si un milliardaire sénégalais su bëri si posé la question mais kii naka la def ba nekk milliardaire parce que sénégalais bu ci mel ci bu ci mel ci man ne ma ne dafay posé question ne ne kon kii diir bu mu nekkee fonctionnaire ba tey kon man ci sama alal la doon sukkandiku pour nekk milliardaire parce que fii rek lijjantiwu loolu fii rek leeralul lan moo tax mu nekk un fonctionnaire milliardaire bu boobaa loolu mën na doon góom boo xam da koy toppaale te bët la boo xam ne Sénégal yi ñoo ngi ko xoolee soxna Aïcha mhm. parce que ñëpp xam nañ ne fii ci Sénégal buñ aaralee mbir yi ci yoon loi dafa te intérêt nga nekk un fonctionnaire ngay def benn liggéey bu parallèle benn ñaar aussi yow naka nga mën a nekkee un fonctionnaire ñu wëlbatiku naan tu un mili tu tu un a mën a posé kon loolu dafa bokk ci boo xam ne ni mën naa topp ki nga xam ne moo di Amadou Ba ci élection yi di ñëw mhm. maanaam ci ci ci ci carrière ci wàllu politique mhm. beneen aussi mooy que ci élection présidentielle yi passé dafa am benn tuuma boo xam dañ koo teg ci kaw ndoddam moom Amadou Ba te jusqu'à présent leeralu ko gis nga démb sax maa ngi doon xool bu jëlee ay kàddu mu indi ci ay leeral mais moom jéemul leeral loolu li mu leeral mooy que diggante ma Karim Meïssa Wade moom nee na terewul benn yoon Karim Meïssa nekk candidat mais par contre la nga xam ne moom lañ ko ko tuumal moom comme quoi que ne dafa doon guerre ay pour que Karim Meïssa Wade du te loolu dafa nekk loo xam ne ni dañ ko koy xoolee naka nga mën a nekk un premier ministre ñu war dem ay élection présidentielle ñu lay tudd ne comme quoi que ne ci juge yi dafa am ñoo xam da nga leen a ger te jusqu'à présent yow jéemoo génn pour jéem a démentir loolu. jéemoo génn pour orienter Sénégalais yi xamal leen ne kat loolu amul. même bu fekkente ne jël nga décision wax nga da ngay bokk da ngay créer sa parti politique mais bët la boo xam ne jusqu'à présent sénégalais yi ñu ngi la koy xoole te loolu mun na ko porter préjudice ci carrière politique am. Mm-hmm. parce que aussi sénégalais nopp wuñu di fol un président boo xam ne nii d' abord tu es un fonctionnaire benn deuxièmement aussi ñu ne tu es un fonctionnaire milliardaire te jusqu' à yi waxoo ñu say milliards fa nga ko jëlee benn ñaareel bi aussi ñun Sénégal yi nopp wuñu di fal un président boo xam ne nii dañ laa tuumal comme quoi da nga doon ger ay juge Sénégal yi nopp wuñu pour fal président yu ni mel léegi nag yooyu c' est des yoo xam ne nii il faut que moom Amadou Ba mu leeral fekkente ne bëgg naa bes ci langue politique et puis ñetteel bi aussi mooy gis nga bu fekkente ne da nga nga bëgg a dem élection présidentielle wala nga créer parti politique da ngay éviter ci sa entourage nga ciy boole waale ay nit ñoo xam ne ni daanaka dañoo xaw a takk. mais démb boo xoolee Amadou Ba bu muy def sa déclaration la ñu nekk ci ginnaaw yëpp c'est des gens yoo xam ne kenn ku ci ne état banque ngay xaar ci ay reddition des comptes. ña fa nekk ñëpp lu si bari si ñoom kenn ku ne sa dossier ma nga ci table procureur. nga ko wër. kon bu fekkente ne yow da nga bëgg a lu bees da ngay fex nga créer ko ay nit ñu bees ay nit ñu sell. yoo xam ne ni au moins sénégalais bu ñu ko gis daañu ci sa bopp mais ñi ñoo xam ne ni dossier gars yi dañu leen a jàpp loxo ci ni ñii kat dañ leen denkoon àll réew mi te àll ko yore jaaru ci yoon ñoo nga bëgg constitué ñoo ak benn formation politique Sénégal duñ ci mën a gis seen bopp ñetteel bi aussi ñeenteel bi aussi mooy gis nga Sénégal dañu toll joo xam ne ni boo dañu toll jamono joo xam ne ni dañoo war a changer système bi ñuy politiquer mm-hmm. mais j'ai comme l'impression que Amadou Ba mi taxawul démb di wax moo nekkoon Macky Sall mi fi doon wax 12 ans ci ginnaaw moo nekkoon Abdoulaye Wade bi fi woon doon wax 20 ans moo nekkoon mag Abdou Diouf mi doon wax 20 ans kii ci ginnaaw il faut que ñoom ñu xam ne ne Sénégal jamono jii la waroon woon ne Sénégal c'est 75 pour cent des jeunes te cette jeunesse là dañoo taay ñuy ñëw di leen di imp di leen di ay programme ak ay wax yu bari. Mhm. intérêt te li wérte wóor Amadou Ba ñi nga xam ñoom ñoo ay lekkkat lañu cest à ay cóobër lañu c'est des gens yoo xam ne ni gis nga soxna Aïssa mhm. neexul ba neew amul ba amul ba bu ma ko doon xelal am ko doon xelal ne ko grand demal toog nga lekk sa xaalis <laughs> demal nga toog nga lekk sa xaalis dama làqatu quoi yow doo politicien demal nga toog nga lekk sa xaalis si qui est sûr et gis nga gars yi ñoo nar a lekk xaalisam bu mu jeex takk parce que c'est des gens yoo xam ne ni amuñu base politique tey bu ñu ànd ak yow li ñuy xaar si yow mooy que nga jox leen xaalis. te bu fekkente ne joxoo leen xaalis du ñu am ngoru ba des ak yow. Mhm. kon cest dikk dire Ba bu fekkonte ne mu ngi la ko c'est que tëgg gi maanaam li li yoon wi mu jël nii man gis naa ni du yoon wi quoi mais de toute façon ak lu ci mënta am muy Amadou Ba yoo muy Massamba yoo muy Mademba yoo am nañu droit créer seen formation politique yoon nangul la leen ko. Mhm. waaye nag ñun sénégalais yi li ñuy réclamer mooy la reddition des comptes. Mhm. c'est des gens yoo xam ne fii lañ leen faloon suñu réew plus de douze ans ñu yor ko ay ministre nekk ci gouvernement bu Amadou Ba ces ministres la kenn ku ne di génn di wax ne ne ñoom li ñu fekk ci seen ministère dafa yéemu ci yàlla mm-hmm. nga gis ay directeur agence yoo xam du dañoo génn di wax ne ñoom la ñu fekk ñoom ci seen agence yéemu na man mm-hmm. dafa dafa jéggi dayoo léegi c'est soi-disant gens là ñoom ñoo nekk fii di daje kan kin fat place naan dañuy lancé ay parti politique am ngeen ci droit mais nag il faut que état bi def liggéeyam état bi liggéey bi mu def maanaam mooy fexe ba alal ji nga xam ne jël nañ ko daal di koy dénk ces la là. responsabilité yi nga xam ne gars yi jël nañ ko daal di koy dénk ces gens là te rapport des Cours des comptes ay rapport daf leen daf ñoom. Mm-hmm. nañu fexe ba loolu ñu élucider ko. bu laajee ñu yëpp yoon am ci yoob yoon da am ci te commencé na parce que am na ci ay rapports yoo xam ne nii mu ngi ci table procureur te procureur finalement jox na ko euh, enquêteurs yi bu comme si commencé am commencé mais monsieur le euh, à travers son entourage il est mal entouré d'après lecture bi nga am Amadou Ba il est mal entouré ak aussi est-ce que kon il n'a pas mal démarré waaw ah, mais la mal la <laughs> très mal démarré moom si sax moom si boppam affaire bi d'abord si moom la d'abord parce que aussi quoi qu'on dise tamit nañu waxante dëgg soxna Moussa wax naa la ko sànq d' sax entourage am moom si boppam pap bu fekkente ne affaire bi leer na c'est-à-dire que moom d' il est mal entouré parce nga xam ñoom fi démb ci rencontre bi ñu si bëri si ñoom dañ tudd ci ay réduction des comptes sous peu daañu wuy yoon hmm. ñooñu ñëpp mu sonn kon c'est-à-dire que yow mënoo nga ne da ngay créé lu bees di créé ak ay nit ñoo xam ne hmm. am doole yow wala sa parti politique du mën a percer deuxièmement aussi yow en tant que premier ministre sénégalais di poser la question sa alal ji nga am yow foo ko jëlee en tant que fonctionnaire mais comment tu peux être un ba noppi sénégalais wëlbati la jox bopp mënta ne. mënta ne c'est que il faut que yow nga élucider sénégalais yi wax leen ne man ba ma nekkee fonction publique. li laa doon am ci salaire sama alal lii ak li laa ko jëlee nangu woo ñu wax ñu Sénégalais sa alal foo ko jëlee. Mhm. léegi cette personne cette même personne laay mooy wëlbati ko naan ñun bu ëllëgee dañ ko war a fal xanaa ñu Sénégalais nous sommes. waaw Sénégalais yi doxuñu kanam Seydina <laughs> pas dupes c'est comme c'est comme pour pour pour peut-être le doyen Mademba Amati Dia qui disait qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. c'est c'est impossible et puis bu ci ci olof bu simple mooy ne mënoo jël carcasse bu def accident maanaam oto bu laq bi démb nga dajale ko danga ci def oto bu bees mënul nekk il faut nga recommencer waat à zéro et démb Amadou Ba boo ko gisee mu taxaw c'est vrai que taxawaay na taxawaay responsabilité nouvelle responsabilité qui est derrière bannière boobu am na solo pour dire que ne nouvelle responsabilité am na lu mu taxawee kaddu yi aussi boo ko séentoo ba séentu xam nga ne que rupture am na bu yàgg ci diggante ma coalition Benno Bokk Yaakaar après mu ngi naan wu ci kenn mais après dinaa dem waxtaan ak ñoom après googu nga ci wax rek déjà ma perte nga fi point yu bëri sénégalais yu bëri ñoom ñoo wàccu gàll waa coalition Benno Bokk Yaakaar ak waa APR ba tax na ñu infliger leen peut situation bi ñu dund léegi léegi mu bi passé élection yi muy 54 cent yu Bassirou Diomaye léegi nag boo boo bëggee ñëw tamit yow nga bëgg ne da ngay def une nouvelle responsabilité jël ay anciens de Benno ay anciens de APR daal leen teg sa ginnaaw dafay xaw a nekk lu paradoxal un peu donc waroon na xoolaat man nag li ma rafetlu peut-être ci discours bi mooy leeral na quand même jéem naa weddi tuuma gi ñu gàlloon ci ndax boobaak léegi nit ci ko doon entouré ñoo ñooy wax mais moom musul waaw euh, digganteem ma Karim Wade ak tamit diggante ak juge bi mu ne même juge yi ñu koy tudd ne dañ koo ger kenn gis musut a gisanteeg moom bay joxanteeg moom loxo donc loolu aussi c' est c' est koy tudd ci ger yi te moom musu cee yooyu yaa bi waxu ci dara donc loolu aussi euh, bon rafet naa peut être démarche boobu mu jël ne comme quoi mu ngi bëgg a rétablir la vérité mais war na dem au delà de tout xoolaat entourage bu baax a baax su bëggee su bëggee percevaat li nga xam ne mooy ci langue politique bi Pape Sané bonjour comme pour te dire que a baax. bonjour tey bonjour la man dama naan la maaleykum salaam wa maaleykum salaam wa rahmatulah nuyu monsieur le maire nuyu Moussa. ah nuyu Moussa moom dafa kii. waaw gars yi quoi. waaw def. si jàmm alhamdulilah. mais encore une fois. brièvement monsieur le maire wala euh, relaté na l' actualité. oui il dëgg yàlla. wax dëgg yàlla mais pour justement parler du cas de Amadou Ba man Amadou Ba il me pose un sérieux problème. <laughs> <laughs> ma dafa am ay jamono ñu naan candidat la am ku fi taxawoon ne muus yëpp dañuy rëbbi. Mhm. waaye Amadou moom dafa mel ni muusu dibitëri <laughs> moom fu ci mooy xam nga day toog rek gars yi di jël yax yi di <laughs> xaar yàpp wadd nga for cest à amul moom musul musul politiquement musul xeex dara bu jógee tey ne day xeex il ne waaw bu jógee tey na day xeex c'est bien lu rafet la. léegi moosu dibiteri ah. waaw moosu dibiteri <laughs> bu jógee tey ne day xeex y' a un problème. xam nga problème bi mooy lan. Hmm. man ma dégg discours am ci quatre point yi mu soulevé ci fi mu bëgg a dem wax na ci lépp ba mu des éthique. <laughs> Amadou Ba n'a pas parlé d'éthique li mu woote yëpp yëpp yëpp la nga xam ne man foo laa ko doon séntu loolu ça rejoint un peu lii euh, Seydina wax. mooy waxtu bi ne nañ ñëw def déclaration de patrimoine mm-hmm. xaw ma ndax dem na wala demul demul muy benn ñaar on lui prête une fortune immense colossale fonctionnaire milliardaire fonctionnaire milliardaire sax dafa dafa ñaaw waaw ba tey jii nanguwu ci nanguwu ci yàbbi donc loolu ñaar yooyu rek tax na pour man ku mel ni Amadou Ba su naroon yëngu politique yëngu ci wàllu politique fa dëgg yàlla waroon na fexe xool ñan la war a àndal parce que mënoo fekk qualité Pape Sané bi qualité Seydina Omar bi nga xam ne ils ont roulé leur bosse partout. ils ont mangé à tous les râteliers. Mm. lekk nañu ci bu bu verte bi lekk nañ ci bu jaune bi lekk ci bu euh, euh, bleu bi lekk ci bu marron bi. ba matu sax ci biir nii di ñëw daan ci lekk. rouge bee leen te nag. waaw duñ ci lekk de rouge bi. on ne sait jamais c'est des politiciens. rouge vert bi waaw rouge vert ci lekk. dégg ah. ñooñu ñëpp nga bëgg leen dajale bëgg na yow nii voici les gens qui tu vas t'accompagner pour demander aux Sénégalais de te faire ouais, Je crois qu'il avait les de faire une rupture. Au-delà du fait que leeral na ni que gerul magistrat daful lii daful lii daful li mais dafa am ay accusations yi nga xam ne les Sénégalais ont envie de comprendre Avec comment un inspecteur des impôts uh-huh. mën a xëy au bout d'une trentaine d'années de carrière ñu ne kii c'est un multimilliardaire uh-huh. war nañ ko xam léegi nag loolu tamit ça repose un autre débat euh, soxna si uh-huh. ces milliardaires fonctionnaires la il faut que l'État xool dans les régies parce que quelque part da nga ci gis ay régies yi nga xam ne légalement ñoom ñooy enrichir illégalement les fonctionnaires waaw légalement c'est-à-dire de manière légale. Mhm. ñoom ñooy enrichir parce que bu ñu naan ne kii chaque mois dana am cent millions fonds communs. Mhm. fu ko teg wala ñu ne kii bu saisie drogue amee dana ci am. Euh, cinq cent million wala deux cent millions. fuñ ko def bu ñu xaree ay terrain am nga ci ay part. am nga ci ay part donc yooyu yëpp il faut qu'on revoie tout ça indemnité waxoon nañ ko ñu xoolaat ko yooyu yëpp il faut ñu ñu revoir ko. kooku ma yi ko waaw waaw loolu yëpp il faut ñu revoir ko. alors mais pour dire vrai. Euh, bon. lander no politique bi nag soxla nañu ko mel ni Amadou Ba ki nga xam ne. Euh, bu waxee gars ne ah day gént. <laughs> alors Seydina peut-être la dernière question parce que temps bi xot nañu euh, euh, gisoo ne démb bi muy wax quand même il faisait un clin à PDS parce que mu ngi naan am na ñu naan sax man maa kale benn candidat te bu fekkente ne dama yéene nit dara yàlla naa ci jiitu est-ce que c'est pas benn clin d'œil bu muy def à Karim Wade peut-être wala à PDS. li nga xam ne moom moo di lien yi parce que nee képp. nga mën a dox ci dina la seeti. waaw mais suñu soo xam nga xam nga dafa nekk di rëccantiku mhm. parce que fu mu toll nii boo jël ay responsabilités di di sol ay daal am ñu mu gisanteel gis naa ko muy def benn tournée dem seeti ji Idriss Seck mhm. gis naa ko aussi muy seeti un peu yenn responsable yi mais moom la mu teg waa PDS waa PDS duñ ko mës a baal ci àdduna yaakaaruma ko de bien que sax gis nga toog ci plateau télé bi euh, toog ci toog ci toog ba tax mbir yi am coow ba ñu créé aussi commission d' enquête parlementaire finalement ñu mujjee see dellu ginnaaw Pape Peres am na fu mu teg seen tànk. parce que PDS du ñu n'importe qui. PDS dañuy def 25 ans ci opposition bi avant ñu nekk ci pouvoir. ñu jël ci pouvoir bi def presque plus de 12 ans. tey jii yàlla defal la nekk ci opposition kon PDS du ñu waxantu. ba chaque jour bu ñu waxee rek c'est parce que am na fu ñu ko teg. bu ñu ñu ko ci ay wax. Mhm. kon di leen def clin d'œil du loolu mooy coow lii lii coow lii moom mooy mu élucider. wax lan moom moo tax tey jii mu fexe ba gàllankoor loolu mooy problème bi waa PDS loolu la ñuy xaar ci moom mais di def ay keneen day waa PDS non PDS dépassé nañu foofu PDS ku xam seen jaar-jaar xam seen taxawaay ah non PDS du du du genre yooyu du genre xam ne da ngay jéeg et puis PDS bu ñu demee ba bu ñu demee tey ba naan dañuy dem di ànd ak Amadou Ba mais ñàkk a weesu ko PDS ak trajectoire moo ëpp sax sens euh, am dara que que que Amadou Ba Amadou Ba. mais tey jii may Karim Meïssa bu amoon dellu dellusiwaat fii ci biir réew mi. peut-être mën na mën na nekk un bon opposant mais kii mais waaw mais qu'est-ce qui nous dit que hein, le fait que waa PDS tuumaal ko est-ce que c'était pas. un complot quelque part un complot entre PDS ak Macky Sall. est ce que tam aussi mënul nekk un complot. Euh, tout en sachant que. Macky jiital na ko. alors que au fond de lui. nekkul son vrai candidat. nekkul son ah, vrai nekkul son vrai candidat surtout man gisuma loolu. président Macky Sall si boppam moom bay dem il a été un démocrate bien que yoon nu mu ko doxalee jaarul si yoon. bu mu waree samp ay bu mu waree samp ay candidats dafa demander l' ensemble des des responsables yu nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ne nañ ko choisir ay candidats nañ ko choisir ay candidats mu am ay candidats yoo xam dañuy démarqué wu. yaa ngi si doon dégg Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao extra extra euh, Mohamed Mohamed Boun Abdallah Dionne ñoom seen ndam si si. mais ñoo waa coalition Benno Bokk Yaakaar nga baal ma ci wax ci seen ñàkk fayda ñoom ñoo jël décision wax ne ne kat ñoom duñu choisir candidat mais président Macky Sall moom moo leen di choisir candidat. mais président Macky bu mu xoolee par rapport ak politique yi nga xam ne ñoo dégagé wu dafa gis ne ne Amadou Ba moom moo nekk en pole position pour mën a remporter président Macky bu muy jël di tànn Amadou Ba foofu ci man ci ci xel mu sell man laa jàpp ne ci loo ko tànnee léegi nag bañ demee ba ci biir mu jékki yu dooy waar ci le président Macky Sall peut-être changé fusil d'épaule c'est la première fois nga gis ab candidat boo xam ne si le candidat du pouvoir ngay dem ci élection présidentielle candidat bi la porté maanaam président bi la porté daal la jàppale la responsable yu nekk ci base bi amu ci kenn koo xam ne ko la jàppale loolu bu amee rek c'est parce que y a anguille sous roche comprendre nga man jàpp ma ne deal la du deal la c'est parce que y a problème mais lépp ci processus bi la xewee gis nga Moussa Sène lu mu bëgg a wax ne mooy lépp ci lépp ci processus bi mais aussi du ci choix bi mais processus bi non processus bi c'est parce que tout simplement mais waa PDS ah, c'est normal waa PDS ñoom ñoo dem ba ci biir gis na ne Karim Meïssa Wade mais mais Karim Wade Karim Meïssa Wade ñaata candidat la ñu wut 21 candidat lañu gën a xaw ma ñaata candidat lañu la la gars yi je défends pas je défends xaaral ma ñëw le conseil constitutionnel retiré woon ñaata candidat la ñu woon mais yooyu yëpp presque kenn lañu ci résultat mooy Karim Meïssa Wade ndax lan ndax xaw ma nee na ay je ne sais pas mais su loolu moo tax ñu ñu rejeté candidature mais soit question la a posé léegi nag boo APRS ñoom demee seen enquête gis ne loxo ko porté léegi bu fekkante ne yi dañ ko doon complot pourquoi pas du pour jéem a setal deram ko bàyyi mais a laver suma honneur li fexe ba porte plainte waa PDS comme quoi ñu wax ñu wax ma seen accusation yi ñu teg ci man fan lañ ko teg mais fii rek defu loolu fi rek taxawul pour leeral deram par rapport ak accusation yi ko PDS teg ñun jusqu'à présent day jàpp ne Amadou Ba lañ ko tuumal moom moo ko def fi rek jëlul wax ne damay porte plainte waa mais pas di leen def keneen dëy fi rek jëlul responsabilité porte plainte waa par rapport ak tuuma yu ko teg man dama jàpp ne jusqu'à la preuve du contraire toog ci ab tribune dinaa waa PDS Massamba waa première amuluñu sens li ñu amal solo mooy que moom mu leeral tuuma yi ci kaw ndoddam te loolu pour yóbbu ci yoon

nguuru Macky Sall Amadou Ba comptable la ci. de 2012 nekkoon premier ministre kon bu fekkente ne ñoom def actuellement nii xam nga tey jii la ñu war a xam ne Sénégal dañu nekk dañu nekk ci défi défi économique tey jii la ko Amadou Ba mën a wax moom. alors que yow ci sa gouvernement gaa rapport feeñal na ne ci biir fonction publique y avait 500 personne yoo xam ne ay mineurs la ñu woon doon fayoo ko chaque fin du mois. muy 500 salaire yoo xam ne dafa dugg ci res ci loxo ci loxo juróom juróom wala juróom benn doomu yow en tant premier ministre jamono jii lan moo la a mën a posé sa. Moussa d'accord naka nga mën a comprendre tey jii ñu jékki-jékki gis na ne ci biir pot de l'emploi plus de 600 et quelques millions réer na fa dugal mais Amadou Ba nekkoon na moo tax posé wul bi wala ci défi économique. d'accord Seydina Seydina. Ba bañ fi jàppee di ja di di rey sénégalais yi di leen dóor. Mhm. défi sociaux lay wax. mais boobaa moo ànd nekkoon na premier ministre lan moo tax euh, loolu intéressé ko mais léegi nag tey jii nag la war a mën a poser question comme quoi gën a Sénégal am nañu défi économique ak sociaux. Mm-hmm. mais gars yi bu ñu yàpp quand même. Mm-hmm. nous ne sommes pas amnésiques quoi. en tout cas Seydina da ngay teg foofu sa peut-être suba suba dinañ ci ah dikkaat. Ah. peut-être suba dinañ ci dikkaat parce que c'est une actualité très très large boo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee de toutes les façons euh, moom moom Amadou Ba pareegul neen parce que dina woote waat beneen ndaje bu gën a yaatu nga gën a li nga xam ne moom taxawaayam on y reviendra incha allah merci Seydina Omar Ba ci chronique tey bi am na dina solo on se